maa ngi fii yaa ngi liggéey. Ah. Ah. booy yulli da ngay liggéey. waaw damay liggéey. Ah. waaw yaa ngi am xaalis fii. fii nii am naa xaalis kañ am naa xaalis am naa yàpp. doomu ndey mu ñëw fii nag ah sama doomu ndey. benn baar mu ñëw liggéey. na bàyyi ba affaire bi màgget. <laughs> keke. ah fii nga jaay sànni dina sol. dina. dina sol. déedéet déedéet ñun yàpp xaar. ah yàpp nag. ah duñ duñ jaay sa yàpp béy. waaw isa doo oo sax ma woo ko mu ñëw. ba dama. kaay. du ma sa morom waaye yow. dañu jaay ñu yàpp dinosaure bi. yàpp nag. nag bu ndaw boole ci. nooy. yàpp xar. Eh. ginaar. ak ay nen. yëpp day jaay. xam nga yii. Ah. baax fii ci ci ci koñ bii. koñ bi gan dootu fi bett kenn. 11 ci guddi ku fi ñëw dinañ la jaay yàpp. loolu leer. gars yi sa numéro téléphone yeeg ya. ñaari set. ñaari set. waaw ak yan.

man Aliou Ndiaye laa tudd. Aliou Ndiaye. di seeti Cheikh Yérim Ndoumban Seck. ah ca ca place bii. Ah. ah gars yi waaw mais moom dafa def erreur. eh Bambey foofu kii bi ndax fekk na benn woowu nekk. waaw. Ah. suñu yaay ñu ñoo ñaawee suñu yaay gambay gambay. <laughs> daa dégg daaj nag benn baa may cinq mille dix mille amul. ah. Samaan. maaleykum salaam. Samaan. maaleykum salaam. ah Ndiaye kat salaat dëkk yow. 哎，阿妹，妹，别个，喂，来你这跟，哎，哎，boy，boy，你干嘛去？真白，真白，该怎样就怎，样。哎，你那又去？哎，好几个人。阿妹，你把我围了困，围了困，跟弟弟走。 waaw yow mi di lekk tàngal yow na ngaa or yow. eh lekkuma damay damay mat yi. sa kanam nga naa ma tegg sa tànk. Hmm. gis nga maandu moo gën tabax jàkk. yow eh, booy yow yaa yebaate waa yow. te xam nga yéen yéen a xam nga yéen caaxaan pàcc dëgg la dëgg la. waaw maanu laa la wax moo gën tabax jàkk. jóge eh, fii yow nga eh, maandu yow. ñu gën a ñu sukkandee. mais ban ku dee nit ko man maa ko nit. waaw léegi doo bi tas. waaw lii mooy tas. parce que tey tey tey. léegi doo bi tas. aywa oh, ku ya neex. aywa oh, ku ya neex. Eh, oo oh, ku eh, neex eh, oo oh, kii oo oh, ko oo jë yamboo jë yamboo. oo jë yamboo oo ku neex oo ku neex oo ko oo jë yamboo jë yamboo. kii papa mbër la te bu leen fekkee fii du baax si yéen. dimbali ñu ngi lay dimbali sa ñaawaay bu dee. na woo yikaantey eh woo yikaantey buy woo sa papa woo yikaantey. soxna ngeen fekkaat fi ngeen di ngeen xam waaw yow moom. non nga naan da ngay dang naam yow naan da ngay amee tontu yow. dara waaye bàccaat léegi bu ma yaay sa boppam golo bi rek. boppam golo bi xa xala bëri baaxul. waaw baax na kay. damaa gis ne kat suñu courant dafa mel ni moo ngi sa jur yaay marase li ngay marase bu bëri trop. papa ko man daal toj ko bu toj ko ak ba fi ñëwee ba daal xaw ma toj ko xool loolu lay ànd def ay tojaat ci mbedd. waaw kay yow papa benn moom sama Juli sama Jula kontok kemauan no sama ya kada kada kada habbu ci kan mawon ben bar ko bu gar da ko jubal ci bamin nak man batas mu mënul ma dara dañ ko ban ni mel ni xëy na bi dina jot mom mbedd mi yar ko mu yaru wa papa bu sawal fek ne da yéen ci japp waaw waaw wax dëgg yàlla a si urée ma wax. an ah, ah, sama xar mu si urée ma. lépp laa ko ba. Ah. lépp laa ko ba. fekk waaw doo bàyyi amul. ah mere naa la lool lool lool lool lool. mere naa la lool. di maam ku yëgoo si dara. c'est damaa am daar ko man bopp bopp koñ ba koñ fu nekk war naa fi di di yëg la. moom dee bët. exemple la lépp mat néew la. bëgg na jël ñu dem si Seras nga tànnal ma ndaw bu baax. Lamine lan la ñuy def Seras. waaw dina waay jël oto dem ville jëlaat oto demaat Seras pour lan. te Alioune Ndiaye ne fii ci ci bopp koñ. waaw xam loolu bees la. waaw bi doon bi doon àjjuma bi ma asek. ñu may amul. ah ñu may amul te lu doon la asek. parce que yow yow Lamine yow Lamine la yow la yow it tamit nag nag nag looy denc Alioune Ndiaye ñu ci bopp koñ. di jaay yàpp bees sax. ah yàpp yàpp xar da koy jaay. Eh. yàpp nag da koy jaay. Eh. Ah, ah, ah, ah ah ah ginaar nen. wax nga dëgg wax nga dëgg. tamit kii ki mu tudd. Alioune Ndiaye bi euh, turu kii bi. Cheikh Yérim Ndoumbaat la. moom kooku la. Cheikh wax nga dëgg. wax nga dëgg maama ma maama ma. toogaay amatul maama ma doo ma ko recherché. toogaay amatul nan dem. ah nan dem xale yi bëgg sama sama ginnaaw. kon dégg nga lu damaa wër wër ba ba sama daal yow demee ci Alioune Ndiaye bu soobee yàlla. Ah. sa xol dina seet. ah ah rayet na. yàqu mooy dem ah ah rayet na. yàqu mooy dem.